peut retenir après votre audition Oui, euh, je suis venu répondre à une euh, plainte, euh, d'une société euh, dénommée euh, Sergem, certaines plus ou moins. j'ai répondu à la plainte et j'ai décidé aussi ah, de porter plainte contre cette structure aussi dénommée Certem. J'ai aussi décidé de porter plainte contre monsieur Tibi Diallo. ma koy takkal kii je voudrais seulement que les Sénégalais sachent le type de scandale auquel nous faisons face aujourd'hui nous sommes dans une situation d'abord où il y a un conflit de compétences je répète qu'il est bien indiqué même sur les documents qu'ils ont brandis il est bien indiqué que c'est situé à Mermoz Je rappelle que Mermont se trouve dans la commune de Mermont-Sacré-Cœur et non à Fan.e. Je répète que M. Djibi Diallo, qui a été attributaire d'une assiette foncière de l'État du Sénégal sur le domaine public maritime de 4000 m2, je répète que quand vous êtes attributaire par voie de bail, vous n'avez pas le droit de vendre ou d'aliéner une partie ou, toute cette, ou bien toute cette assiette foncière. La question qu'on doit se poser aujourd'hui et que tous les Sénégalais c'est comment est-ce qu'une personne étant attributaire de 4000 mètres carrés s'est arrangée pour céder 2000 mètres carrés à une structure qui s'appelle Certem. Je rappelle que quand vous êtes attributaire, c'est moyennant 2450 francs de droits de timbre par mètre carré. Ces gens ont réussi à se retourner et à prendre 2000 mètres carrés qu'ils n'ont jamais acheté et à le revendre en moyenne à million le mètre carré dans cette zone. Voici ce que nous dénonçons. Nous dénonçons aussi euh, la privatisation d'une plage publique et je rappelle à l'endroit de tout un chacun, le domaine public maritime, il est inaliénable. Inaliénable. Ça veut dire que même le président de la République du Sénégal ne peut pas vous donner une autorisation pour construire sur le DPM. Ce qui s'est passé, s'est passé. Nous, que nous disons aujourd'hui, nous disons qu'il n'est pas question de privatiser la plage de Mermoz. Et ensuite, Il n'est pas aujourd'hui question de laisser ces pratiques continuer à perdurer. Comment une personne peut être attributaire de 4000 mètres carrés gratuitement, payer que 2450 francs par mètre carré et prendre la moitié, 2000 mètres carrés et le revendre à un promoteur immobilier à presque 1 million le mètre carré. Ça s'appelle de l'escroquerie. Ça s'appelle du vol à ciel ouvert. C'est pas acceptable. Et personne ne va m'ébranler. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de répondre par une plainte. Nous allons porter plainte contre la société Certem. Nous allons porter plainte contre M. Dibi Diallo. Et les arguments que nous avons à brandir le moment venu, vous le saurez. Ce qui se passe actuellement dans la commune de Mermont-Sacré-Cœur, ce qui se passe sur le littoral de Dakar est totalement inadmissible et inacceptable et intolérable. lu ma fi indi woon dañ ma plaintoon ma ji ci plainte bi wante ñun tamit dinañ plainte tamit ñu ngeen xam ne dañu plainte parce que am na lu ngeen xam ne nii day daal di ñuroo leneen te euh, mënuñu nangu nekk ci dëkk bu ñuy woowee Sénégal mu am ay nit yu nga xam ne dañuy dem di laaj ñu leen di jox ay suuf ne dañu bëgg tabax ay juma ay jàkk wala ay école wala ay clinique ñu jox leen suuf jooju ñu daal di wëlbatiku di jël suuf jooju di ko jaay dama ne tey état du Sénégal amul droit jaay suufam su la état du Sénégal joxe suufam dala koy jox ci li ñuy woyee bàyyi bail mooy contrat de location daanaka yow mel nii yow da ngaa jóg dem luwe ji appartement ci immeuble ngay loué appartement dem ba ci biir jël appartement buñ la loué nga wëlbatiku jaay appartement bi wala nga wëlbatiku jël benn néeg ci appartement bi wala benn wàññ ci appartement bi nga dal di ko jaay waxuñu sax nga loué ko moo wante nga jaay ko bail képp ku am bail mooy mooy contrat de location entre état ak privé donc tey lu ñuy ñaawlu mooy naka la état mën a yëkkati suufam jë jëbal ko ku ñuy wooye Jibi Jàllo boobu kooku daal di wëlbatiku daal di jël genn wàllu suuf jooju jaayaat ko beneen société loolu dañ koy ñaawlu loolu euh, yoon euh, daf ko tere euh, bu ci tegu tamit lu ñuy ñaawlu mooy géej bu ngeen xam ne nii man mii falaa jàng fay te tey yàlla may na ma ma nekk meeru gox gi donc xam ngeen yàgg na ma jàngoon fa fay tey ñu ne dañuy jël géej googu dugal ko ci benn propriété privée mais ñooñu ñoom ñoom ñoom ñoom ban xeetu ñoom ay ñan xeetu sénégalais lañu sénégalais yi nga xam ne nii nga jóg dem ba jël lu mel ni géej géeju ñëpp nga ne da nga koy ñuy wax ak yow nga ne da ngay porter plainte dama ne loolu yebel la te comme man yebuma kenn du ma nangu kenn di ma yeb dama ne gox gi ñun kenn nomewuñu kenn faluñu dañ ñu dañ ñu euh, euh, kenn nomewuñu ñun ñun dañu fal dañuy dem élection gagné wante nag wax naa ko sànq nee naa ci dëkk mel ni Sénégal. lu mel ni président Macky di tabax siège u te amul permis de construire ah yéen tamit xam ngeen euh, boobaa tamit lu waay neex def donc loolu mooy wax ji ça veut dire que tey ku mel ni président di ilif réew mi di di di jaay doole maire yi di jaay doole maire def lu ko neex jaay doole teg gendarmerie tabax guddi te amul permis de construire te moom président Macky Sall mu may dégg kon président Macky Sall su mënee dem ba def ñaaw téef bu mel noonu asama sénégalais lambda yéen nag dama leen di ñaan nag na ngeen gëstu. tur yu ma leen di wax noonu ngeen gëstu tamit société yu mu leen wax noonu parce que Sénégal ku am deux milliards ba ngay génn tu ne pa n'importe qui te Sénégal pour nga porter plainte Barthélémy Dias ci lu mel noonu ñu me indi gendarmerie tu n'es pas n'importe qui wante nag du ma solo ci wax ji parce que le moment venu si la presse vous n'êtes pas capable de savoir ce qui certains vous n'êtes pa capable de savoir ce qui ces personnes je vous dirai qui sont-ils parce que c'est la république des copains et des coquins yaa ngi doon waxoo euh, ci mètre euh, carré euh, nous voulons d'abord récupérer notre plage remettre en cause tout ce qui a été fait sur l'assiette foncière là c'est une assiette foncière où il y a beaucoup d'autorités de ce pays qui y sont je ne veux pas spéculer mais il y a beaucoup d'autorités de ce pays qui y sont nous on remet pas en cause ces autorités qui sont-ils, ou la chance qu'ils ont eue, ou le statut qui leur permet d'avoir ces, ces, assiettes foncières. Nous disons non à la privatisation d'une plage publique, nous disons non euh, aujourd'hui à la violation d de l'accès à plage publique, nous disons aujourd'hui non à la spéculation foncière. Comment un citoyen sénégalais peut être bénéficiaire, attributaire de 4000 mètres carrés

rang et leur statut. C'est totalement inadmissible de leur part. Les gens doivent savoir raison garder. Ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes attributaires, les mêmes personnes. Ces gens-là sont partagés tout le foncier de ce pays. Je veux que les Sénégalais sachent que l'État du Sénégal n'a pas le droit de vendre son foncier. Tout Sénégalais qui sollicite une assiette foncière de la part de l'État du Sénégal, il est attributaire moyennant une taxe symbolique qu'il paie à l'État. Comment ces Sénégalais peuvent se permettre d'être les mêmes attributaires dans ce pays de 16 millions d'habitants et comment sont les mêmes Sénégalais qui se permettent de prendre la moitié de ces assiettes qu'on leur donne et qui spéculent et qui revendent ces assiettes foncières au nom de quoi Et je souhaiterais rappeler à l'endroit de l'autorité que la loi est claire. La loi dit que nul, n'a le droit d'être plus pontes de la République qui sont toujours les mêmes bénéficiaires et il y en a marre. Il y en a franchement marre. Alors maintenant, quand ce sont maintenant des gens qui nous traînent devant les, les, les tribunaux et qui nous traînent euh, de, de, devant des brigades de gendarmerie, je rappelle que demain, je suis convoqué à la police du point E. Alors, e, comme la gendarmerie, je répondrai à 10h30 du matin. Je e parce que je veux que les Parce que quand cette histoire va exploser et que les noms des uns et des autres. Les noms là vont sortir. Je pense qu'il y a des gens qui sauront que ce n'était pas la peine d'aller aussi loin. Je répète et je le confirme. Ces gens qui ont porté plainte contre moi sont dans, dans l'erreur. Ils ont intérêt à se ressaisir. Ils ont intérêt à comprendre que tout ce que nous disons aujourd'hui, nous disons que la plage ne peut pas être privatisée. Le foncier qui a été vendu, ce n'est pas possible. Le titre foncier qui est, qui est, est, qui est ciblé, c'est Comment quelqu'un peut avoir un titre foncier sur un bail de l'État sans aucune mise en valeur? J'interpelle directement le directeur des domaines, j'interpelle le, le, le conservateur foncier. Je le répète, du Sénégal met à la disposition des usagers des baux. Chaque personne qui détient un bail peut prétendre à titre foncier une fois a une en valeur à hauteur de 80% de la valeur foncière du terrain. Partez là-bas, vous allez voir. À part la destruction de la falaise, ils n'ont rien investi. Il n'y a aucune mise en valeur. Ces gens maintenant brandissent un titre foncier. Un titre foncier, il est bancable, il est rentable, il est vendable, il est hypothécable. Comment un Sénégalais peut obtenir un bail de l'État du Sénégal Il n'a pas posé une brique et ce bail devient un titre foncier. Mais il est temps que la République des voleurs arrête, cesse et